mais quand même c'est c'est quelque chose dañ koy rafetlu dañ koy rafetlu euh, di ñaan ñu gën a jàppale Sénégalais yi rek. mais te xam naa ni ñu ngi ci dynamique boobu. Euh, mais c'est déjà bien parce que aussi nu mu mënti toll ak nu mu mënti mel moom moo gën euh, bañ a wàññi parce que aussi denrée yi cher na Sénégalais yi sonn nañ lii dafay wane ne ñoom déjà ñu ngi ko am nañ conscience bi te ñu ngi jéem a def ay efforts. dañ leen ci encouragé. mais encore une fois c'est très tôt un peu les engagements. noonu lay demee. parce que tey jii nii ce qu'ils ont fait Macky Sall l'a fait n'empêche ils l'ont critiqué euh, wàññi ay ñetti dërëm ay 40 francs loolu lan lay lan lay feeñ ban impact. lay am ci panier de la ménagère bon man dama bëgg rek ñu ñu may leen tuuti temps parce que si il vient d'arriver mhm. deux mois ba léegi ñoom ñi ngi installé. Mhm. am na sax direction yoo xam ne insta. c' yoo xam donc nañ leen may temps ñu installé wu toog xool dossier yi je pense que loolu moom moo gën quoi parce que aussi réew. nekkul lu simple. réew du du du caaxaan mbir la moo xam ne boo ñëwee war nga xool lu ne. Euh, évaluer lu ne caytu lu ne ak xool ku ne fa nga koy teg. donc nekkul affaire bu simple. donc nañ leen may temps parce ñetti weer ñetti weer. dëgg-dëgg moyen de trois mois.